Gaston Production présente mbokki Sénégal mbokki amateurs yi déglu la grande finale du CLAF 2024 bi Gaston production organisé wu moo war a dox nag ci diggante Doudou Sané ak Thiatou Yarakh ñaar ñu am mérite ñaar ñu jàmbaare waaye Gaston production bi yam foofu mbokk yi la phénomène de Pikine Prince moom la jël daal di koy boole ak doomu Fatick bi Jokkel Aliou Fatfat dina fa jàkkaarloo ak Thiatou Ngéwél jeex jàmm jàkkaarloo fa ak Baye Mandiaye numéro 2 Bib Diop 95 fa ak Naaru Sokas Babacar Balde jàkkaarloo fa ak Ablaye Diop 1 giga jàkkaarloo fa ak Omar la Gaston production def mbokk yi mu ne entrée francs annexe loge bi mu ne 5000 bi mu kon nag gars yi rendez-vous baa ngi noonu le dimanche 28 juillet à l'arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production non eh, tey moo wax la moo wax la bokkuma ah, moo wax la gars yi ne moo leen gën a yi waaw moo la benn affaire si tey jii waxuma ko pour jeter ko fleur mm-hmm. waxuma ko pour dara ndax mënoo mm-hmm. nekk ak nit di ko jeter fleur mm-hmm. man li ñuy juboo sax bariwul parce que lu ko nit ragal a wax man ñeme naa ko wax xam nga tax parce que dama ko bëggal jàmmam te si sport bii ñu nekk sport entraînement mooy lépp ñoom naturellement bu du dara du dara doole daa nekk seen yax ba pare macha allah lu ñu si defaat rek suñ ko tegee ci yoon rek liggéey mm. day gën a baax si ñoom rek da di gën a arrangé te Balla Gaye des na est-ce ni des na mhm. des na lu des na daan na tafaatit ni garaawul enwie mhm. mais mhm. liggéeyam desaat na si kanam liggéeyam desaat na lu bari ñi bala mënatul ñëwaat te xaadu saf ñaari yoon dafa mel ni ah xam nga loolu yàgg nañ ko wax man leen gis nga nit kenn du ko gën a xam boppam Balla Gaye yaakaar naan su demee ba mënatul woon dina toog eh, dina toogal boppam wala si sport rek su si nekkee ay xale wala ay naataangoom dina xam ne moom kat mënatul mais munoo dem UNICEF si France. Mhm. fay sa ay sa ay millions. ñëw nekkaat fii di yéeg ay di di contact si. su desewul woon doole moom si entraînement rek su ne rinkum dajeeg booy yi mu nekkaloon. Hmm. dina xam ne moom des na. Mhm. mais wax dëgg yàlla combat bi liñ ci bëggoon yëpp. am nañ gis ngeen ko ci muy ndam ndax chaque jour dama ko wax nee naa leen Balla Gaye néew ma soixante cent pour cent de mais Balla mu am soixante dix pour cent wala quinze pour cent mun na daan mbër mu ne. Mhm. course ah. moom dafa gëm kii. non non c'est si biir toog fii ne Balla dina duma tafatin dina daan tafatin. waaw waaw xam nga dafa am fu ma ko teg. waaw balaa ngay kii sax mën naa hmm. leen souligner loolu yaakaar naa ne wax naa ko si avant combat. ndax nee naa leen lii xare soo siy dem. Hmm. tey ñett yi su ko nit ki amee war ngaa mën a am yaakaar. yàlla mooy dogalaan. Ah, hmm. mais am yaakaar. muy Balla Gaye am na fit. am na sañ-sañ. mun naa bëri. te loolu lépp daa nekk si moom am na si moom macha Allah man tey jii tiitu ma woon Tapha Tine te ñeme na xeex man damay wax naan Balla Gaye même bu mënul xeex ñeme na xeex léegi su ma la waxee benn affaire sax di ko gëm dañ koo dalal sax si combat bi mais su arbitre sifflé woon hmm. narul woon yëkk benn tànk dellu ginnaaw mais Boucar Boucar xam hmm. nga tey waaw nit ki da koy wax li mu wax man ama ma laa toog hmm. waaw li mu moom li mu wax nii dama ne ko dama ñu leen Balla bu amee waxuma la cent pour cent rek vingt waxoon bu amee vingt pour cent rek waaw mbër moo ko tegal rek neel attention waaw c'est parce que li mu mën muy mm. bëre moom mm. loolu nekk na ci yaramam ba pare premièrement sànq dama doon wax mm. après ki appel bi ñu dagg ma mm-hmm. Malick maa ngi koy ziar di ko bëggee ah ku baax la waaw ku baax ah. mm-hmm. mais dama li la première première face to face bi seen euh, ci stade bi dama ñu la ñu toog fii man la tafaatin pois bii mu indi bu ko indee mooy daan boppam mm-hmm. poids bi waaw ñu demaat mooy bi may wax bi ma ne la après dégg naa ci lu nekk ay xasak waaw waaw waa bawal bawal yi génn lu nekk ñu wax ko ay saaga la jëlee yaa ma ni leen ma ni leen am na loo xamante ni Sénégal dafa naqaree waxee sport mm-hmm. Mm-hmm. na ku si nekk dañ koy bàyyi li nga xamante ni maîtriser na ko mm-hmm. man nee naa leen ki ngay xamante day def musculature nga bàyyi kook moom la mu maîtriser coach bii toog ci banc bi moom mooy toog ci banc bi comme Lamine euh, ka yor euh, wàllu musique nga bàyyi kook wàllu musique am ku si nekk dafa am rôle booy jouer ci mbër yaa ngi dégg. Mhm. nee la bala Gaye bu entraîné wul woon. Mhm. du wane ay podium. Mhm. gis nga Tapha Tine li ma waxoon ci poids xam nga poids boobu noonu. wàññi nañ ko sax de. wàññi na ko na ko mais. ba tey baaxul. waaw physique bi mu indi ci combat bi. waaw nee naa leen loolu du forme mbër. <laughs> loolu laay wax te dama koy wax <laughs> mais déglu ma Bukar man damay wax ci pa ci ci wàllum euh, liggéey. Tapha Tine war naa liggéey. jàkkaarloog Balla Gaye seen première seen première seen première euh, contact Tapha Tine di soufflé di xoox war naa loolu war na mën a nekk hmm. bi ñu jàppantee ba bàyyante rek bi tafaatin Tine demee mu ngi doon mu ngi doon nooy nooy bu rëy waaw voilà waaw mm-hmm. waaw mm-hmm. ana liggéey foofu. mais est-ce que du taay bi aussi toog fii. Mm-hmm. ma ni leen. ma ni leen mbër damay am coo xamante ne dama koy xool ci moom. man leen open press su Balla Gaye waxuma la sax yaramam bi mu wane. mais kii du ma bàyyi ma fenn tous dafa metti tous fecc tous dafa metti ma ni leen Balla Gaye fecc na trois fois. tourné def lépp mais Balla maa ngi xool gémmiñ gi. Mhm. ba tey Balla Gaye nekk fa daan. non non mu ngi reetaan rek. Mhm. ma xam ni kii fii lañ toog man leen Balla Gaye dafa liggéey cardio. Mhm. dëgg la wala dëgg. man leen dafa liggéey cardio bu baax. yaa ngi dégg. waaw Tapha Tine cardio boobu mu gis nga yaramam am na yaram yoo xamante ne mënoo koo indi. ci làmb ba pare am cardio bi. am vivacité bi. seen première kii bi ñuy taxawee stade lan laa la wax ni la Tapha Tine bu man maay moom du dellu Côte d'Ivoire. ndax la moom laa waxoon fii. ma euh, kii ni ma ndax lan man leen Balla Gaye bu doon man maay moom mm. su ma defee signature bi ci guddi gi laay dellu France mm-hmm. ku si nekk moox la ñu ne ma naa man leen euh, Tapha Tine dafa war a toog Sénégal euh, contact lu bari mm-hmm. jéem a lijjanti vivacité am mm-hmm. loolu laa waxoon fii defu ko Balla Gaye dem am lu mu jokk ci waat man leen Balla Gaye bis bu indee vivacité bi nekk ci moom du taxaw ak Tapha lii lépp waxoon naa leen ko te te te Balla Gaye mhm. vif la daane euh, Tapha da koy dóor di ko remplacer mhm. Mhm. day dóor di remplacer di déplacer wu fi Tapha Tine taxaw mu fay taxaw maanaam da koy dóor di déplacer wu même bu koy kor day kor tëb dóor dem déplacer wu taxaw fële nee naa la Balla Gaye kulli fadderin la loolu àdduna nañ ko nangu course yi da nga d'accord ci li mu wax. ok bu yàggee xam naa tam ñii dañuy sot sax. waaye <laughs> ah, waaw mais c'est que c'est que da nga am loo dafa am loo xamante ne yow nga ñëw waxaat ko fii. Mhm. te bi ma koy wax ñaari émission lañ fi invité. Mhm. boobu yow ñëwoo fi. Mhm. ñu invité ma li nga wax li yow da waxaat. man moo tax affaire bi jaaxal ma quoi ma ne kii est wala ñu ko. imagine-toi man laa wax le huit réseaux sociaux. que ni kii bi mu indi dama ne carrément moo gën a athlétique Tapha Tine. ni nga wax rek après on m'a traité de tous les noms saaga nañ ma nday. mais comme nga nga mhm. baal ma tuuti gis nga loolu lépp noonu. Mhm. Euh, man damay jàpp ni complexe la. Mhm. gis nga complexe. billahi wallahi wal kitaab. lan mooy complexe. complexe mooy tafaatin. Ah. wax naa ko fii keroog gis nga ñëw na ñu ne ay loxo yan ko teg ay Eric Favre rek <laughs> ay loxo yéen ko teg ak billahi mais si loxo yi bien la nekk dama ñu ne ñooñu ëpp nañu xam-xam non attends du question xam-xam alquranu karim man maa la ko wax du question xam-xam déglu ma rek dama ñu ne loxo yi bien Eric xaritam la waaw tey mel na rek course Lamine tey. yor moyen. waaw jël bala nit Aziz Ndiaye jële bala. waaw yóbbu ko INSEP kii jël ko. yóbbu ko di boor ci ay nitam kaay ma xamal la leen. am na fa waa ñu bu leen tëkkalee INSEP. waaw ak Côte d'Ivoire. bokkuñu INSEP ay professionnels ñoo fa ne. ay borom kàngam ñoo fa ne gis nga Moussa Fall mi xam naa ko. Hmm. Moussa Fall. Hmm. bi yor bala la xam naa ko moom mu ma gisoon léegi xam na mu baax. Hmm. ba bi may nekk man équipe nationale Moussa Fall xam na ma xam naa ko. ay ndaanaan ñoo yor Balla Gaye mais du ay ñëw fii indi tubaab bu gonfale wu taxaw ëf noppam ëf di nga ni déedéet du loolu Eri mhm. Fafa day jaay ay produit am mhm. ni mu bu fekkee ñoom ñoo entraîné Tapha Tine mhm. zéro laa leen di may niñ te entraîné Tapha Tine dara baaxul dama ñu la billaahi dama ñu la xoolal gis nga gis nga Bukar man ngay waxal man ngay waxal ñun entraînement defe naa ni ku ci def vingt huit ans d' expérience mm. nit mënutu laa mënutu laa jaaxal ci entraînement mm-hmm. ñun ku taxaw entraîne mbër mu taxaw entraîne su ma la xoolee damay xam ne entraîné mm-hmm. tafaatin fàmb ya mu indi woon contre euh, Eumeu Sène ay fàmb ay biir mais ngemb la rek ngemb ah déedéet bu déedéet bàyyi ngemb tafaatin ñu dindi ngemb dindi lépp moo Balla Gaye biir mm-hmm. tafaatin boobu dama ko tafaatin ay fàmb Ah? ah moom la bëree contre Eumeu Sène mhm. ñu ni dañ ko jàpp ci gàllaaj tafaatin ma taxaw fi man la dafa yeex il est lent mhm. te lent boobu lépp ci pois la mhm. deuxièmement man la tafaatin bu jàppee ngemb bu Balla Gaye ñaari loxo jàpp ngemb Balla Gaye jaar ñaari loxo jàpp ngemb man la amul xam-xam bu mu ko daanee vidéo yaa ngi fi man maa waxoon loolu ñu la amul xam-xam bu mu daanee Balla Gaye c'est parce que dañ ko seetaan te tafaatin daan ñu daan Balla Gaye déggoo li ma la wax nan la leen daane daan na leen daal. mais nan la leen daane. daan na leen nan la leen daane. nan la leen daane. ñi daan Balla Gaye nan la leen daane. waaw am na non bu ko da nga may wuyu. non déedéet may wuyu ba pare. non xam waxee da nga naan man àdduna bépp bu ñu waxee da naan. kii dafa faral mais mais dama lay mi su leen nëbbul moom. lu bon bon su dee benn fan moom moog tafaatin ñoom si. xamante ne waaw moo tax ma bëgg ñu moom combat bi. su ko waxee su ko waxul sori si bu baax a baax. non loolu laa bëgg a waxtaan ngeen laaj. moom laa bëgg mu wax moom ndax sori si combat bi ah. dafa mhm. parce que dafa war a liggéey nii. Mhm. mais perto bi dama bëgg nga wax ma ci combat bi rek parce que dégg nga coach Lamine nee na liggéey nga seg tafaatin mhm. nit ñi nag ñu bëri tey jàpp nañ ne tey parce que bawol boole ñu ngi Gaston Production présente mbokki Sénégal mbokki amateurs yi déglu la grande finale du CLAF bi Gaston production organisé wu moo war a dox nag ci diggante Doudou Sané ak Caatu Yarax ñaar ñu am mérite ñaar ñu jàmbaare waay waaye Gaston production bi yam foofu mbokk yi la phénomène de Pikine Prince moom la jël daal di koy boole ak doomu Fatick bi Jokkel Aliou Fatfat dina fa jàkkaarloo ak Caatu Ngéwél jeex jàmm jàkkaarloo fa ak Baye Mandiaye numéro 2 Bib Diop 95 jàkkaarloo fa ak Naaru Sokas Babacar Balde jàkkaarloo fa ak Ablaye Diop 1 giga fa ak Omar loolu la Gaston production def mbokk